Yewwi Askan Wi camarade du Dakar nañu sant yàlla bu baax parce que bég nañu suñu xel seet na suñu xel dal na ma nañu sant yàlla santaat yàlla santaat yàlla bu baax suñu xel dal na suñu xel seet na Barthélémy Dias j'étais censé, au nom des leaders, ma def parole ak propos wu investir suñu candidat loolu lañ ma santoon muy wareef muy bànneex muy lu ma sawar ngir ñetti yëf bu jëkk bi mooy Barthélemy mbooloo mi la doyloo mbooloo mi nga àndal mbooloo mi tax lii moo ni Barthélemy Dias la ñu yokk ci ni suñu 19 candidats parce que nag combat wu mairie combat ville combat commune la il faut gagner dans chaque commune il faut gagner dans chaque commune sama doom boo ne na léegi suñu candidat yi ak suñu candidat yi nga xam ni moom la ñu am ci 19 communes muy ay jigéen ay góor ah. ay xale ay mag yoo xam ni ils ont la culture de leur commune ils le sens de leur commune ils sont imprégnés des réalités de leur commune mais c'est surtout c'est des candidats de rupture d'innovation c'est des candidats qui vont oser leur commune looloo dalal suñu xel looloo xel parce que xale yi nga xam ni moom la ñu jiital ci 19 communes yi dañu xam seen bopp xam fi ñu bokk xam li ñu doon xam li ñu yéene xam li ñuy liggéeyee mën ko liggéey te fas yéene na def lu fi kenn daawul def xam nga lu tax parce que dañu wuuteeg ñi nga xam ne ñoom nañ jàmmaar lool du ñu benn ñu ne ñoom du ñu benn du ñu benn du ñu benn fekk fi mu néewle lu xew la yaa koy jiite des personnes de rupture ñu xam seen bopp xam lu tax ñu jiital leen ñu xam surtout li nga xam ni moom la Yewwi Askan Wi tëral ci doxalin ak doxal suñu waxtaan tax ñu tànn leen ils sont imprégnés ils sont inspirés de notre idée de gérer autrement nos localités gestion bu wóor gestion bu leer gestion bu aw yoon mais gestion buy jëriñ askan wi nous sommes tous adeptes du penser local et agir local penser local et agir local ku nekk ci ñoom suñuy candidat yooyu ak suñu candidat yi xam ni soo doxalee sa dëkk muy sa koñ di sa kër di sa quartier mën nga doxal sa kër mën nga doxal sa dëkk ëllëg parce que dëkk bi mooy kër gi mooy koñ bi mooy quartier bi mooy fi ñu dëkk suñu candidat yi loolu moo leen inspiré mais li leen soxal mooy dañu leen fan lañ jëm ngir liggéey ngir ànd ak was askan wi liggéey liggéey ak askan wi liggéey ngir wër askan wi ñëpp xam nañ ni Dakar moo Sénégal ma ni Barthélémy liñ la sas mën nga ko attan nga ko bëgg nga ko te daañ la ko jox liggéey askan wi liggéey suñuy gox mooy liggéey sa réew parce que da ngay toppatoo askan wi da toppatoo seen dëkkin da ngay seen dëkkuwaay da ngeen toppatoo seen melokaan da ngeen di toppatoo seen nekkin da ngeen di toppatoo seen ëllëg ak lu leen jëriñ ak lu ñu bokk mais la différence avec les autres c'est que ñun li ñuy def dañ koy def ngir ñoom ak ñoom pour ñoom ngir ñu jëriñ dëkk ñaareelu Barthélémy Dias pour investir ma wax ci leeral Yewwi Askan Wi muy àndu gor muy àndu nawle mais muy àndu ay bañkat bañ yenn yi bañ nangu yenn yi parce que nag ku xamul sa bopp mooy nangu yenn yi ku xam sa bopp am na loo dul nangu doo ko def mukk mukk mukk mukk parce lu nekk ci nettal lay mujj Yewwi Askan Wi li mu proposé askan wi du pour ñu Yewwi Askan Wi wóor nañu ne chacune de vous chacun de vous est conscient de ce qu'il peut apporter à sa collectivité à localité mais surtout ku nekk ci yéen xam na ni la koy jëriñ moo koy defal boppam ku ko ci fekk na koy jàppale wante du xamal na ko boppam Yewwi Askan Wi ni il faut gérer autrement les collectivités il faut que nos collectivités soient le miroir de l'État futur que nous allons construire en 2022 quand nous gagnerons les législatives inchallah dañu bëgg maire yi ngeen di yor dooni structure yoo xam ni ku ko gis xam ni lii weesu na lii am na lu coppeeku te lii am na nit ñi njëriñ moo tax Bart yow ak say 19 collègues dañ leen wóolu dañ leen doyloo dañ leen yaakaar mais xam nañ ne du ngeen ñu bett du ngeen ñu bedd te di ngeen def li ñu bëgg incha allah. waaw ñetteelu pàcc bi daal. mooy yow dakaar Dakar yow ak Dakar pourquoi ñun ñëpp ñu d'accord ni yaay suñu candidat tu en as le profil tu la capacité. tu en a l'ambition, mais tu en as surtout la force de caractère qui fera que tu seras toujours à l'avant-garde du ni wóolu nañ la doyloo nañ la yaakaar nañ la te yéene nañ la yàlla na daa Dakar mottali ci ñu yéene di au soir du 23 janvier wéer Yewwi Askan Wi wéer Barthélémy Dias wéer les 19 communes les 19 maires